làmb ji amatina tiis gannaaw benn weer Jules Balde junior bu Pikine daal di wàññeeku keneen koo xam ni xale la nekkoon ci yoonam nekk ci yoon ndaw xarañ loolu tolloon ni mbër amoon fit mën ko te Rufisque yépp yaakaaroon ko rawatina écurie Lébu gi di Papa Yada numéro 2 rakk ci ama moom i daal di wuy ji boromam sa ngéemal lii di làmb ji nga xamante ni amoon na yaakaar lool ci moom kon xale bi la dem na wuy ji boromam ci accident bu méttee metti mu nekk tiis euh, ci làmb ji Papa Yada kombaam bu mujj mi ko bëree woon nag ak kii di Papa booy Djiné nekk boroom kër euh, ci Ndeye Gueye kon euh, ñu dellusiwaat ci li nga xamante ni moom mooy combat boobu mu mujjee woon bëre ambiance ca stadium Iba Mar Diop. yaay Lebu Lebu Tëngéej baa ngi mooy Lebu muy tuus bu am solo bi mu wane te boo ko xoolee mu mel ni ki xale bi am na lu mu bëgg ci làmb ji te bëgg euh, dem ba succès de magam di am a neex nekk ci làmb ji di ci def tamit moom it lu mu mën ama neex yëkkati na ay kàddu doomu dàngu ñoom ñaar ñi ko gunge woon ci komba bu mag bile. mu dal ak tey combat benn tension mais mu dal tey rek xool adversaire lii ko mën ko exploiter. daa door wala day taxaw di ko déglu. non non man déglu man damay déglu kenn na taxaw xool ko liir ko doo ko dem si kawam xeex bëre jàpp daan incha allahu rabi. ñoo leen raw est-ce que yéen leen am pression. non non ñun xamuñu la rek dafa war a day yëngal nii nii rek mais xam na li mu laaj ci biir loolu lay def incha ngeen ngémb ko nekk ci ginnaawam ça veut dire que ne yéen a koy wan yoon bi expérience dafay joué. waaw noonu la demee xam nga ñoo ko njiitu si néeg bi ñoo ko war a wan fi muy toogee loolu la rek. waaw di ko ñaanal nag bu garaaw nag. non am na kii bëri na bésu gën a garaaw lii la premier combat grand combat rek. Hmm. mais bëri ku bëri Pape Thiam am leneen kii magu mbër la kii mag kii rakku mbër la. kee jëkkëru danseuse la ah mais ñun ñooy yooyu gëmuñu ko man dugguma si géew bi am na ñoo dugg si géew bi Papa Yade la ah Papa Boy Djiné ñooy dugg si géew bi yooyu digal ngeen booy bi mu xeex. lépp mënuñ ñëw kat ñun wante ngeen mënuñu bëri te duñu xeex. mbër noo def ziar naa la. waaw maa ngi baay. maa ngi jàmm maa ngi saaka jinne baay baay faa la mën jinne taw baa nga muy wax rek jinne benn jébalu si maam Serigne Touba baa muy wax rek. léegi bés lu mu laaj tey sa premier grand rek ñun liggéey rek ñu liggéey xanaa suñuy mag waaw lu mu laaj loolu lay def bu soobee yàlla. laaj na tey de. lu mu laaj bu soobee yàlla. xeex laaj na ko xeex. lu mu laaj bu soobee yàlla pare nañ lépp daal waaw. am na El Hadj Deme damay alaasig bi damay bañ mu téye si alaas lii tëkki ka day tëkkeeku lii moo bu si jàppee day am appui non alaasi waa téere bu si jàppee day dagg mais morso bi bu si jàppee day am appui. sant yàlla bu baax. doomu dàngu ak ama neex ñoom ñaan ñëpp nekk ay magam boot ko ci bésub làmb jooju nga xamante ni euh, fësoon na lool te it ñëpp ko doon coow diggante moom ak papa ji ne mu am ci ndam ñu xool combat bi de. nga xam ni papa booy jinne bëri na ko ak kii di papa Yada. tey di ngeen suur làmb ndaxte ñaari mbër yoo xam ne ñu ngi ci yoonu làmb ñoo fii daje tey ku ci mel ni papa booy jinne kenn dootu ko présenté ak kan papa Yada rakk ci ama neex tey tëngéej la ak géej waaye. booy jinne pied papa Yada pied gauche xeex dana ca am c' est leur premier grand combat seen grand combat bu njëkk la ñoom ñaar papa booy jinne door na gauche. mais demul daf koy cookaas Papa Yada àndal ak sa xel Papa Yada combat bi xel sañ-sañ ci waaye xel ci la door na ko gauche droite Papa Yada mooy tul door mu wàcc mooy tuleen door mu wàcc arbitre sifflé mu yàgg 19 heures Papa Yada àndal ak sa xel Papa Boy Djiné boo ko xoolee dafa concentré wu carrément. combat bi waru ko saax saaxee wax na ne sànq ñii duñu sama ay morom retard rek moo tax ma jël leen Papa Yada yow tamit tu dois imposer tu dois imposer ta jeunesse imposer li nga xam ne moom mooy sa njoolaay sa rallonge loolu am solo la atu la si yow mais concentration lu ci am solo la ñoom ñaar ñu ngi leewtoo à distance. Papa Yade numéro 2 à gauche Papa Yade bi mu tuddee boppam moo ëppi ngandim Saalum foofu ca Tëngéej xajal ci mbaru Tëngéej yëpp ñu fay entraîné attention Papa Yade dóor na uppercut lay dóor Papa Yade dóor mu wàcc la bëgg dóor mu wàcc boo moytul dana ci am dóorante jël na tànk ba Papa Yade mbot na Papa Boy Djiné daan ko Papa Yade daan Papa Boy Djiné Papa Yade numéro 2 daan Papa Boy Djiné ay e waay tey fii lay fii dina rëbëjoo tey fii dina jaxasoo dina rëbëjoo ak mën a bëre te rako ama neex il avec la manière il a avec la manière waa te ngay jegi ñoom ama ñoom doomu dangu ñoom doomu dangu gi noonu barki alxuraan du moroomam booy bi bu ko joxee Lac de Guiers ko barki alxuraanu karim kon nii la xale bi la amee ndam ca boobu mu tëw am komba te képp koo ko jox mu delloo avance kon xale bi rakk ci ama neex mbëru écurie Lébou gi ca Tëngéej sëngee mën na làmb ji ak euh, lii di diwaanam di Tëngéej bi nga xamante ni yaakaaroon na ko loolu xanaa di ko ñaanal moom mi la Assane Diop di turam dëgg yàlla yërëm ko xaare ko àjjana moo Jules Baldé Junior ak ñeneen ña mu fekkee ña ko fekki ñépp làmb ji sa ngéem na